Euh, asalaama eh petit eh, eh Pape Mbaye kaay kaay kaay kaay kaay kaay Pape xoolal dañuy dañuy dugg nag euh, fii seet nag Maguette Seye conseil diplomatique président Macky Sall doomu zone nord boobu nga xam ne lu rëy def na ko fi borom meeting bu mag ba. xam naa ne war naa lekk cere. ba mi ngi tëdd. waaye nañ ko bett rek xool waa kër gi ñu àgg ñoom. ñëw leen topp leen ma topp leen ma topp leen ma sama gaay yi yéeg ana waa kër gi. ana waa kër gi. Euh, nangeen ngeen def salaamaaleykum ñun de dafa am ku doon seet xaw ndax mi ngi fem dégg benn euh, ponkal jàmbaaru Macky Sall ji ñuy woowee ministre Maguette Seye fii mooy kër gi ah kon gars yi yëngal leen defe naa fii mooy kër yee leen ko yee leen ko waay dewanatil fekkee de ci lu monsieur le ministre dewanatil xoolal fekkee de salaamaaleykum waa kër gi waa dalal leen ñu bokk waa ñu ngi lay nuyu. waaw Diop ñu ngi lay fay. di nuyu sama tonton bu baax a baax. waaw ñu ngi lay fay jóob waaw euh, monsieur le ministre nag lañ ñëwoon tey nag doon ko ziar si ci bis bii nga xam ne mooy marqué la fin de l'année musulmane mhm. euh, euh, fas yéene nuyoonteeg waa kër gi yow jëlal ma waa kër gi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax yaay nga ne gis nga yore kurus ga la ñoo ngi ci kurus gi waaye nag ministre ministre nag la ñu bëgg nag mu génn nag ñu nuyoonteeg moom saafanteeg moom ndax nam nañ ko daal te te at mi wax dëgg yàlla mi ngi jeex te foog ñu ñëw defanteeg moom yu baax anam amamoo. ah bon incha allah tey Diop ñoo kontaan bu baax a baax ñëw ci kër gi fekk fi suñu paap suñu xarit muy monsieur le ministre euh, président Macky Sall gëm ko doyloo ko comme ni ko suma gars waxee léegi dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën ñëpp doyloo nañu ko que ñu koy ñaanal nguur gi muy ayam bi yàlla na ko euh, yàlla na neex ba deween incha allah yàlla na ñu toogaat di ko feetewaat ak monsieur le ministre kontaan nañu baax. léegi François woo ñu monsieur le ministre ñoom parce que fu mu toll nii euh, dañ ko nam ma gis nam ma waxtaan ak moom ay <laughs> ci ñu àgg si ci biir ci xam naa ku jël ngalam doo ñàkk ani màgget si xam naa sa yaay jurul ba doolay xam naa ku waaw waaw ay waay bu nuy xam naa ku jël ngalam ñàkk ani màgget si yow xam naa sa yaay jurul ba doolay xëcc wurus xam naa bu nuy xëcc wurus xam naa ku jël ngalam doo perte ani màggit si xam naa sa yaay jurul ba doolay waaw waaw for you lay ñaalo gina god daan jël ko way ku ñaaw duñ ko way baat doolam maître Maguette Seye Macky Sall yow la wóolu du yàgg ba ngay ñoom président yow la wóolu ci réew mi jom jaay dana jabaay jikko kalaan ngir boo ko déggalee màgget sey du yàgg ba ngay ñoom xoolal xam ngeen ku woo président la woo wo ngeen góor wo jàmbaar xam naa ni e, affaire bi sax e, jaaxal na waa kër gi dañoo ñëw rek ni saraax xam nañ ne heure bi heure fu fu tam mën a nekk ci maire bi ngay nekk ñu daal di ñëw ànd ak sama gars yi rek nag ñu bett la fas yéene ñëw ziar la baalante ak yow àq ci at mu bees mi nga xam ne dañ jógu euh, bala ñuy sori monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. sama gars yi maa ngi leen di fay yaakaar naa ni lii moom mbetteel la. waaw waaw waaw mbett giñ la bett nag tey noo ko gisee d'abord loolu laa lay njëkk a laaj. bettu bekk nag aussi parce que mbetteelu ay xarit la ay am di jàmm euh, nit ñoo séqal euh, Thiès euh, séq ñoom yitey askan bi ñu jekki-jekki bett la fekk la sa kër ci bis bii di bisu tam xarit. Euh, suba di yow ma Achoura euh, am symbole yu bëree bëree bëri donc kontaan ci gis leen maa ngi woon ci kurus gi di am ay kii yu may def euh, bi ma déggee yi mbetteel la mais mbetteelu mbégte la aussi di leen dalal jàmm di kontaan ci gis leen. ñu ngi sant bu baax di nuyu waa kër gi bu baax a baax a baax di nuyu suma yaay yaay booy ñu ngi lay nuyu. fay naa leen bu baax. baa yaa ñuy ñaanal bu baax a baax. ci laa dëkk de. waaw ah, waaw yaa dolli ñaan yi bu baax a baax. incha allah maa ngi ci de. bala maa bàyyi ñaan yi. Mm-hmm. da am li ngeen bëgg. macha te yaakaar naa ko ndax màggat maa ko jur mm-hmm. waaye ku baax la mm-hmm. kenn du gërëm sa doom kenn du gërëm sa jabar waaye dinaa ko gërëm ci seen kanam. ànd ngeen ne ku am fulla ci boppam ku am wëllëre ku xam nit ku mën a teral nit fa tabaarakallaaw nii mu nii mu leen jàppe noonu la ñu jàppe ñun ñii di waa jërëm ñun la jëkk a man mi yaayam daf maa lu mu bëgg lu ma la bañ fu mu jublu day waxtaan ak bama ba ma mu door koy def lii mu sémb yal nañ ci am ndam ngeen am ci ndam lu koy lool kii ngeen di jàppale yal na ko yàlla may ndam may leen ndam da bu amee ndam ngeen am ndam nu am ndam sant naa ko gërëm naa ko daal li ma bëgg a wax lépp mun ma ko wax sax jërëjëf yeggale na ko jërëjëf yaa booy ah, monsieur le ministre euh, yaakaar naa ne li maire wax sax bu fa yemoon mu neex euh, ndax daanaka junj nañ li ñu bëggoon wax yëpp waaye fekk nañ fi ñi nga xamante ni euh, saa yi ñu musaan reer comme d'habitude fii lañu daan ñëw di waxtaan yow les week ñu fekk fi sa sœur yi nga xam ni taxawaay bu rafet la ñu am yenn saa yi boo fi nekk la nga nekk en mission ñoom lañ fi fekk ñoom François ak ñoom Thié ñoom ñëpp ñu ngi fi sa première réaction ci at mi ñu jëm Euh, lan ngay njëkk a doore say kàddu ci atum jullit mi ñu jëm. Euh, tàmbalee baalu ñëpp àq euh, di baal ñëpp àq at bu ñu ko tàmbalee liñ ci war a njëkk ñaan mooy jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ku amul jàmm dootal dara kon nañu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ko réew mi defal ko ki jiite réew mi muy euh, son excellence le président Macky Sall euh, bu amee jàmm tal euh, réew mi réew méppee bokk am jàmm bu ko yàlla mayul jàmm kenn du tal jàmm kon nañu ko ñaanal jàmm ñaanal ko mboolem Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ci at mi ñuy dugg ak at yi ñuy dëgmal yépp di sant ni nga wax njaboot gi nga fi fekk yépp Euh, yàlla dafa dogal ñun xew-xew bu am Cees lañ koy defe si rawatina tey nag euh, di tamxarit li nga ci wax euh, di bis bu am symbole bu rëy rëy ci lislaam mais it culturellement am symbole yu bari ci Sénégal ak ñun ni ñu koy féetee ci suñu façon nii ngeen ko defee donc di luy rapprocher nit ñi du luy wone suñu suñu culture di luy wone li ñu bokk Euh, bis bu amaam solo la ci ñun at mi daal li ma ciy ñaan di ko ci njëkk a ñaan mooy yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu xéewal euh, lii soxna si wax léegi it di suñu yaay di suñu lépp euh, nga xam ni ñun moom bu woon dara it li ñuy def saa su ne mooy week bu ne ñëw añandoog moom dékk ko suñuy loxo lii mu ñu ñaanal ñaanal ko président yàlla na ko dal yàlla ci kaw loolu euh, yaa ngi woon ci liggéey bu am solo ndax ngis nañu euh, parenage bi li nga ci loolu liggéey ñu ngi ci jamono ji ci parrainage bi te daanaka sa liste yi sax nit ñi sax dañuy ñëw di la indil ay carte d'identité confiance boobu ñu am ci yow lu ko waral. waaw euh, confiance bi nag yaakaar naan du man xam nga nit <clears throat> li olof di wax lëkk bu lekkee alom na ko gërëme coy confiance bu ko nit ñi amee ci man. c'est grace au président la République son excellence Macky Sall euh, moo ñu jox responsabilité yi mu euh, yi mu ñu jox ñu xam ni it responsabilité yi mu ñu jox li mu ci jublu mooy euh, moom la nit ñi Sénégal fal bi ñu ko falee li ñu ko sas mooy soxla sénégalais yi mu taxaw ci loolu moom lay yewwoo moom lay yendoo moom lay nelawee ñun ñi nekk ci wetamit kenn ku ne Euh, mu sas la nga jàppale ko ci kenn ku ci nekk foo ci ne gox boo féete foo taxawee li war a nekk sa yitte mooy taxaw jàppale président Macky Sall ci yitte askan wi ci loolu la ñu nekk loolu la ñu nekk ak waa Thiès loolu la ñu nekk ak suñuy mbokk loolu lañu nekk ak suñuy am di jàmm mën naa am loolu moo tax nit ñi it xaw a am confiance ci man waaye confiance boobu mu ngi découlé rek ci confiance bu président la République am ci ñun yéen ngi woon ci initiative yoom solo ci wàllu social di ko def def ngeen ko ci tabaski gi euh, euh, dafa mel ni da ngeen ko répété waat tamit ci tamxarit ci bis waaw xam nga euh, nit moom boo dëkkee ay nit yàlla na rafet na boo amee li ñuy wax fukki mbubb yàlla daf laa joxeloo benn gën ngaa néew bokk. donc boo dëkkandoo ak ay nit yàlla na yenn saa yi yu mel nii bu amee. acte de solidarité euh, dafa yàgg ci Sénégal dafa sax ci Sénégal euh, li nga am akus néew nga fexe ba bokk kook nit ñi Euh, li nga wax def nañ ko ci tabaski gi euh, tam gi def nañu ko euh, waaye ñi ngi jublu événement bu am solo muy rentre des classes incha allahu rab it ñu am yu ñu ci yéene ngir jàppale ko parents d'élèves yi ndax événement bu xaw a diis la it waaye yooyu acte de solidarité la te dafay dugg ci li président Macky Sall wax muy année bi année sociale la waaye loolu ñaax la rek Euh, action moom bi ñu ko falee ba léegi ci social la gën a fës waaye at mi bu ko ci euh, seppee ngir ñaaxaat la symbole la et eh, loolu incha allahu rabbi eh, dinañu ci nekk waaye it dañ koy continuer bu soobee yàlla eh, diiru deuxième mandat bi fi président di am ak sax nag incha allahu rabbi ca kanam a kanam. waaw xam nga monsieur le ministre euh, euh, zone bi nga dëkk muy zone noor yàlla dafa dogal tey nga am fi tur lool nit ñi ràññee la boo boo faree dee di wax sax ñu ni ah Maguette Seye mu Macky sàll fii la dëkk ñu bari xam ko ndox mi taa ñu bari di ko faral di jiiñ yenn leader yu mel ni yéen ñu bëggoon ngeen di ci ay leeral comprendrewul seen compétence wala nu mu demee noonu ba tax nit ñi di ci wax. waaw xam nga euh, Thiès moom dafa am lu ñu ko ràññee woon ñëpp bëggee ko ko mooy dëkk bu set euh, dëkk bu assainissement bi baax lool euh, am na travaux yu ñu def defoon biir Thiès travaux yooyu donte am na solo. am euh, impact bu mu ci dëkk bi dafa am lu bëri lum fi indi ci ay gàllankoor ci wàllu investissement euh, euh, am na loo xam ni ci compétence su élu yi la muy communes yi compétence su maire yi waaye am na loo xam ni it yaakaar naa ni ittewu doomu Cees yëpp la war a nekk ñun ci suñu wàllu bopp am na ñoo xam ni ñi ngi ànd ak ñoom ñu ay jeunes cadre Cees waa Euh, ñoo xam ni ay paysage euh, paysagistes lañ euh, ay urbanistes ñi ngi ànd ak ñoom di xalaat nag ngir naka lañu ñu mën a fexee ba am na yoon yu bëri yoo xam ni ñoo obstruer ndox mi fi ñu toll ñu ngi ciy xalaat waaye xalaat boobu xalaatu biir néeg lay nekk ngir tënk ko ci ay kayit yu wóor ndax seen xam-xam ci loolu la màcc bu ñu demee ba saytu boobu leer ñu jéem a wut nag ñoo xam ni incha allahu rabbi ñooy ànd ak ñun ngir liggéey loolu ndax ñun lii suñu euh, yitte mooy am na yenn du ñu ci xaar kenn euh, euh, du ñu xaar rek ni kii lañu fal moo war a dox lii waaye lépp loo xam ni mën nañu ko incha allahu rabbi dañ ciy taxaw te ànd kook doomi Cees yi nga xam ni yépp seen yitte la te mën nañ ci dara Euh, d'accord monsieur le ministre pour ñu jeexal euh, daakan daanaka say list léegi mu pare euh, yaakaar nga ni list yi li nga ci liggéey lépp ni mu baree ndax loolu dalu sa xel nga jàpp ni bokk nga ci président Macky Sall war a jël nag dénk leen zone nord. waaw xam nga loolu moom yaakaar naa ni bëri na ñoo xam ne dinañ la ko ni waaw zone nord war nga fee mën a positionné wu pour jël ko waaye dama koy répété rek saa su nekk lii sama yitte. Euh, ci fii ñu toll du xëccoo leadership euh, wala xëccoo jiite dara benn yitte rek laa am mooy nu ñuy def ba ñun ñëpp ñu ànd ngir falaat président Macky Sall dès le premier tour au soir du 24 février képp ko xam ni mën nañ la ci tàllal loxo pour ànd ak yow ci liggéey boobu am nañu ouverture tàllal la ci loxo ànd ak yow liggéey ko liggéey bu sell euh, xam nga ku mel ni président Macky Sall boo ko amee xam ko xam valeur ndam la sac la tiitar la euh, dafa yàggul dañu jóge Chine euh, Chine la fa xewoon mooy forum sur la coopération sino-africaine euh, muy daje bu am a am solo solo daje boobu mooy ni Chine ci xayma day jël lu tolloo 34 mille milliards li ma wax 34 mille milliards de francs CFA lay jël ci diiru ñetti at di ko jox Afrique xalaat nga 34 mille milliards de francais CFA ni mu toll ci xaalis di ko jox Afrique ngir jàppale ko ko ngir fexe nu ñuy suqalee Afrique waaye Chine buy def loolu day tànn réewu Afrique boo xam ni moom lay àndal liggéey boobu. muy kii war a co-présider ak moom forum de coopération sino-africaine Chine bi mu xoolee dañu Sénégal moo ma doy dañu président Macky Sall moo doy pour nekk co-président wu FOCAC réewi Afrique yépp ànd ni président Macky Sall doy nañu ngir nekk co-président wu ak ngir mën a ànd ak Chine saytu trente-quatre mille milliards de francs CFA yooyu nga xam ni ci diiru ñetti at ñi ngi ko war a dugal ci Afrique kon président Macky Sall ñu fal ko ko président pour forum boobu mu war ko nekk juróom-benni at mooy nekk ko président bi. tàmbali ci 2018 bi mandat mi ngi war a jeex 2024 incha allah 2021 Sénégal mooy war a accueillir forum boobu fii ci Dakar xam nga euh, koo xam ni mboolem Afrique boole nañ ko wóolu la ngir dénk la loolu Chine. di réew mu ama am doole ci àdduna am kóoluteef ci yow dénk la loolu NEPAD di ni ñu programme bi ñu war a saytoo Afrique nu ñu koy suqaleeg nu ñu koy développé juróom benni at yi ñu génn yëpp président Macky Sall lañ ko jox moo yore kàddu Afrique di waxal Afrique ci g di waxal Afrique ci g di waxal Afrique ci dajee àdduna bépp xam nga ku mel noonu soo ko amee euh, mu egg ci dayo boobu am leadership bu bu toll noonu boo nekkee euh, di dégg ñenn euh, ñu naan réew mi day mi ngi banqueroute réew mi mi ngi au du réew mi dañoo piétiner démocratie bi euh, yow ci sa bopp li may wax encore une fois yenn partenaires yi dañuy naan waaw yéen ñun Sénégal gi ñuy dégg opposants yi di wax xanaa bokkul ak Sénégal gi ñu xam ñoom ñi nga xam ne dañoo xayma bu baax fu économie Sénégal toll xayma bu baax ancrage démocratique bu Sénégal xayma bu baax respect droit de l'homme bu Sénégal ba jël cër yi di ko dénk Sénégal wóolu président Macky Sall ak leadership am di ko dénk ñun ñi am mbër mu toll noonu suñu titre la suñu sac la dañu koy ndamoo li ma wax keroog euh, le président Macky Sall est le candidat xam nga apte mooy lan mooy le candidat de l'action mooy le candidat du pragmatisme muy le candidat du travail muy le candidat de l'émergence ñun kooku la ñu am kooku mooy suñu porte drapeau mooy suñu porte étendard mooy suñu titre. jërëjëf sama gars yi taajaboon leen tuuti ñu soo a tàggatoo ak ki nga xamante ne mooy monsieur le ministre. merci beaucoup monsieur le ministre yaakaar naa ne dañuy waaj a lañ ma jëm le ministre looy tàggatoo. <laughs> mais encore une fois rek euh, mon cher di di leen remercier euh, di saluer encore une fois seen euh, implication ci li ñor Ceesuwaa yi yaakaar naa li nga tudd sànq mooy situation assainissement bi en général préoccupation wu Ceesuwaa yëpp la e lii ngeen di def lu am am solo la mooy di dem ci Ceesuwaa yëpp. fexe mobiliser Thiès waay yëpp pour ñu ànd liggéey Thiès ànd liggéey Sénégal loolu je pense que mission gënu ko noble encore une fois merci maa ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak wasalaam.